yaakaar naa ne Sadio Mané dafa war a jóge Liverpool bi xam ne ni def na fa juróom benn saison yoo xam ne gagné na fa Ligue des champions gagné na fa super coupe d'Europe gagné na fa coupe du monde de clubs gagné na fa Premier muy championnat Angleterre gagné na fa tamit Carabao Cup et FA Cup si si saison yooyu Sadio Mané dugal na fa cent vingt buts et maanaam am na ñeneen ñi mu jox ñu tamit ñu dugal toll si quarante huit passes décisives si deux cent soixante neuf cette saison nag muy année bi si euh, deux cent soixante neuf matchs yi yoo xam ne moom la Sadio Mané joué cinquante et un matchs joué na ko ren jii avec Liverpool dugal na tamit vingt trois buts en toute compétition confondue euh, final bi xam ne ni moom la joué samedi bi passé contre euh, Real de Madrid bi match bi jeexee euh, Sadio Mané ak ni mu waxee jàpp naa ne kii dafay dafay jóge si équipe bi ren jii parce que ni mu waxee mooy que ne moom mu ngi remercier supporter Liverpool si lépp loo xam ne nii euh, moom soutenir nañ ko ainsi que le coach ensuite yéene leen équipe bi lépp loo xam ne nii lu baax muy des lendemains meilleurs donc ku dégg nit waxee naanu war nañ mën a jàpp ne kii kat def na see adieux à actuellement nag nit ñi nag ñu si bëri ñu wax ne Sadio ne Bayern la war a dem euh, man nag bu fekkee ne foofu la jëm man Swabog rafetlu naa ko parce que su demee foofu Sadio Mané moom mooy nekk vedette équipe bi et ensuite aussi dina fa trouver maanaam coéquipier en équipe nationale muy muy Bouna Sarr te ensuite aussi moom dina may tamit beneen élan tamit beneen élan beneen envol euh, championnat Allemagne bi parce que dina tax population sénégalaise bi a population le peuple africain ñu mën convenablement le championnat allemand si booga championnat Allemagne aussi tamit dina am beneen dimension boo xam ne ni que ce soit muy les Sénégalais et les Africains nañ commencé suivre Sadio Mané parce que Sadio Mané kat fi mu nekk nii dafa nekk un stade planétaire nit ñi nag ñu ngi wax nag aussi que ne euh, war na mën a dem Real de Madrid man nag su ma nekkoon koo xam ne dama koy conseillé dem nekkaan Real de Madrid nekkatul foo xam ne nii Sadio Mané war na fa dem parce que même bu demee Real de Madrid lépp loo xam ne gañ na ko Liverpool yaakaar naa ne Sadio Mané comme ni ma waxee sànq des champions gagné na ko gagné na championnat Angleterre bu demee fële su ko gagné tamit du jëriñ dara et sûr et certain que bu demee Bayern Sadio Mané incha allah dafay remporter le championnat d'Allemagne donc je pense que le choix le plus judicieux mooy mu toog Bayern Munich signé fa nekk star bi aussi tamit euh, yàlla dina ko mën a dimbali ballon d'or bi xam na ni moom lay xëccoo ay année euh, te mënu ko gagné su boobaa incha allah mën na ko gagné.